asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen di feddali suñu kóllëre ak suñu cofeel tey nag dañ indil gént di nàmp wala gént di nampal gént gi nak moom it bari na nit ñi dañ koy laaj ak ni muy ka dikkaat gént yor liir buy nàmp ci yow wala nga gént sa doom ji jur muy nàmp ci yow wala nga gént mag muy nàmp ci yow ak gént di nàmpe ci ak jur moo xam bëy la wala xar wala nag wala sax muy mbaam gént di namp nag ñaare bu fekkee nit ak nit la li ci gën a bari ci nit ñi naqar la leen di dikke wala coono wala ay jafe-jafe masalan ku gént am liir muy nàmp ci yow du sa doom nga rek gis liir buy nàmp ci yow loolu dana tekki rab ku am rab boo xam ne da koy indil ay xat-xat yi am raba ko koy teg bu fekkee danga nga gént sa doom ji nga jur Muhammad la wala sa doom la daal waaye feragut mi ngi toll ci nàmp nga gént muy nàmp loolu dana tekki masalan tawat ci moom wala tawat ci yow su fekkee nag koo xam ne mag la ba tey sa doom la nga gént muy nàmp ci say ween loolu naqarit wooy am la ci moom wala ay jafe-jafe gooy am la su fekkee mag la léeg-léeg yu mel noonu danay faral di am ci ñu bari ngi ñu koy laaj ndax eh, masalan gént sarak bu góor di nàmp ci sa weeni soxna xam nga yu mel noonu bu amee léeg-léeg sa xel mën naa jàpp ne ñoom ñaar dañuy moy wala bokk yu mel noonu day faral di ci gént sa xel day ñaaw te fekk boobu déedéet loolu naqar ak coono ak coow yu ñuy seq ñoom ñaar la mooy gént nit di nàmp ci nit bu fekkee ne da nga gént ngay nàmp ci lu mel ni xar loolu wërsëg wooy jëla wërsëg wooy jël la ci ak force bu fekkee danga ko ratt nag ak sa loxo loolu wërsëg wooy jël la ci moom ci coobareem bu fekkee danga nga gént di nàmp ci patti mbaam loolu wërsëg wooy wor wërsëgu araam na moo xam mbaam xoox na wala xel dema noonu su fekkee ñay la wërsëgoo jële ci kilifa bu mag a mag la bu fekkee aw fas la kasaalika kon li ci tane mooy gént di nàmp ci weene ak jur rawatina jur gi ñu dëkkal bu dee sa loxo la looy jële la ci coobareem bu da ngay nàmp noonu nag si gémmiñ nag looy jële ci moom na ci ci lu ko dul neex ñaare loolu lay teg bu fekkee da ngaa da ngaa gént di nàmp ci weeni bahima ngay nàmp te amul soow kooku wërsëg bu dëgër la woo xam ne da nga def pexe yu nekk waaye du sotti doo ko jot kon mbokk yi nii ab tënk la woon rek ci lu jëm ci wàllu nàmp ndax mbokk yi bari na lim leen di dikkal ak luñ koy laaj lool waaye lii ab junj la ci boo xam ne boo ko takkee waxtu woo ko gént di da nga xam gent gi ñaare lu muy tekki ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci ñu koy dundal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu